Média celle qui nous a rejoint Aminata euh, la ñu koy woowe bonjour Aminata qui nous a rejoint Bouba Ndour bonjour Bouba c'est-à-dire man maanaam bi muy jaay ma naqari quoi man franchement quoi yow bi nga xamee ni yaay xale bës ba tey da nga da nga da nga da nga raakaaju quoi ah c'est trop. <laughs> Ah, ah. dina ñu wax lan moo ko feeñu tey comme ni mu koy defee jeudi bu jot ci opinion mais d'abord Aminata ak euh, Défi 10 tey d'abord c'est l'anniversaire de qui. Euh, de la personne qui, avec qui je travaille. Et que tu adores Oui, que Parce que, que moi, je t'ai vu depuis bien. ce matin. Ah, je suis trop content que c'est l'anniversaire d'une personne que j'adore. Ah oui, c'est vrai. Hein, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée, mmh. surtout dans le milieu professionnel aussi. On travaille donc toutes les images qu'on fait, c'est grâce à lui. Ouais, ouais, donc ouais, un happy birthday à Félix Lucien Jagassa. J'ai anniversaire, Félix. Ben, c'est mon, boy là. On bosse ensemble. Voilà, si. Et j'ai travaillé avec lui. Il est très très fort. Et nous aussi, on travaille avec lui. Parce que fi diis voilà c'est lui <laughs> mais est-ce que gars yi amuñu sax benn affaire am foofu. Euh, Félix est-ce que am euh, di dem alors tey comme chaque jeudi kan moo relever défi bi. waaw tey dañu dem seeti Habib Seck. Mhm. Habib Seck moom fii la nekkoon. Mhm. fii la doon jàngee nee na mu dem ba terminal daal di def bac ñetti yoon affaire yi dëgg. waaw si la daal di jël décision dem Toulouse. jël ay kaaka ay ay kaaka waaw jël ay bagaadam di dem. Uh-huh. et mu doon mu nekkoon jouer nawet. waxtaan nee na xàmme woon ko torop ci équipe ndawetaan yi mu ne comme que am na compétence ci football na dem xool milieu football bi en Europe. Mhm. mu dem ak benn espoir. Mhm. mais comme jàmm ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam mu dem. dëggal la <laughs> la ko fa la mu fa uti woon fekk ko fa. Mhm. mu jël décision nag ñibbisi. ñibbisi nekk dans le milieu de la peinture loo xam ne ba muy ah. jóge fii di dem sax xamu ko woon xalaatu ko woon. donc dañuy dem xool entretien bi xool naka la dundee immigration bi. ak naka lay dundee e-, actuellement statut ex immigré. retour. oui euh, benn sénégalais sénégalais original bu nekkoon fii jóge fii dem France Toulouse bon Habib ba muy nekk fii footballeur kese la woon quoi dana ko jàng arrêté terminal après trois fois awma tous bon ma dem euh, fële football. football fii laa commencé woon si woon naa fi nag nit yi xam nañu ma gagné naa ay coupe yu bëri bon de kooku ñeneen ñi mu mus a ñi mu xam yëpp sur le terrain. léegi dem naa fële football naa fa ay équipe équipe yu ndaw nag bon du lu ma woon espéré damay jóge fii di dem bon j'étais obligé ma liggéey liggéey naa lépp foofu bon ba yàlla may ma benn buntu ma am euh, benn métier métier bi peinture peinture projetée comme suñu famille amoon nañu benn référence benn góor bu ayoon sax léegi mu nekk xale mu nekk sama référence bon ma bëggoon jaar si yoonam xam nga jox ko loo xamante ne amu ko woon mooy football li ñuy xaar si football bon ma nekk si tali bi si mbedd bi Médina yi di plongé dem parcelle plongé dem si équipe ne état yeeg championnat yi plongé fa bon léegi lan la dem Europe pour ñibbi si équipe nationale. mais yàlla mayuma loolu mais may na ma loo xamante ne suite la quoi parce que football bon benn moment la rek quoi te da ngay football ba pare comme li ñuy wax sport étude mais sport ak liggéey. parce que étude étude tamit liggéey la à la fin quoi léegi bon ba ma demee foofu pour lekk ak naan tax na ma dem liggéey quoi parce que football bi mayu ma ko étancheur laa nekkoon maa ngi woon si toitu gàlle yi laa daan nekk laay lay la laa na booy nees beeg bon ak euh, chalumeau bi ñu daan kii da nga naan yéeg ay na si bu gën a moom dix-huitième laa nekkoon bon ñu war a defaraat toitu kër yi pour mu bañ a sedd bon def na liggéey naa ko pendant six mois def naa après ma jógee foofu ma nekk euh, kii ma nekk euh, intérimaire intérimaire nag aha là ça devient intéressant parce que semaine bi damay nekk lii semaine bi ma nekk nii semaine bi ma nekk lii nekk naa maçon plombier aide aide maçon nekk naa lépp lépp lépp bokk si biir chantier France c'est dur France <laughs> c'est dur mais tiyoon na trop trop sax mais bon sant yàlla quoi amoon naa ay nit yoo xamante ne moom teewoo nañ ma quoi ba ma ba ma nekkee Sénégal kese foog nga tukki pour mën a teg mais du dëkk bon tukki nag bon comme ni nit li ñuy wax koi c'est c'est quoi c'est am fa expérience wala am fa xaalis te xaalis moom foog nga liggéey pour am ko soo buggee yoon bu jub bañ a am problème parce que fee moom du comme Sénégal bi ñu ñuy xam. moi personnellement je l'ai vu je pensais que mbër la. mais peintre la. waaw ancien mbër la ma gën a jox de. <laughs> waaw waaw xam li mu def il nga am fit dëgg. waaw fii doxul nga tante dem fële. foofu doxul nga ñëwaat. recommencer waat li nga entamé fii dox. waaw ah il faut être vraiment jàmbaar dëgg pour euh, pour nga gëm ko waaw exactement te moom nee na foofu nekk na fa lu ne nee na mbalit sax tuur na ko fa ci góor gu tool ne moom mm-hmm. nee na dem na ba sax di tuur mbalit. pour ah, pour tuur mbalit dafa am xaalis ci Europe bi. ak excès. Mm, bon d' accord d' accord mais par rapport ak ambition bi mu amoon. Oh, bi muy dem voilà bu doon keneen la tamit du du ko nangu. Mm, mm. mu confirmer racisme déguisé bi fa am parce que nee na dund na ko. à 100 xam naa su ma tukki woon bay liggéey tuuru mbalit bu ngeen ñëwee tournée bu ngeen séenee ci pôle dugg làqatu ba ngeen romb ndax xam naa leen da ngeen may yóbbu Sénégal ne ma ngay tuur mbalit France. Pape Thiam Toure Mbaye dina nekk di seen di dugg ci biir pôle bi. Ah, ah man moom du da ngeen romb ba doole àggali du xanaa keneen. bu <laughs> tuutkatu mbalit amul woon écoute euh, dëkk bi salte santé euh, waaw feebar yi bari il n'y a pas de sous-métier nee na métti woon na torop torop torop si moom parce que dund na fa racisme déguisé bi surtout dans le milieu du du football. j'imagine voilà. équipe bi mu nekkoon góol la fa woon mais moom rek moo fa doon noir donc il a vraiment galéré mhm. te peut-être li ñu reconnaître compétence footballistique am moo tax moom jotu ci am li mu bëgg mhm. te nee na lëg moo ko wax nag nee na lëg loo ko bañ bañ bañ nga mën koo nangu mën a dawam donc dëgg la le fait que ma ni <laughs> gudd noppam sax war nga koo nangu ñu ne lépp lépp lépp lépp lépp bañ bañ bañ bañ nga wax ko nangu mën a dawam nga tegal ko ci ne ko léeg boobu loo ko bañ bañ war a nangu gudd noppam n'est-ce pas. waaw waaw exactement. muy jox conseil xale yi nga xam ne dañu nekk si dawal milieu du football bëgg dem mu leen di wax ne agent yi ñu si bari léegi jëlatuñu yóbbu. parce que loo mën football football football boo moytuwul. doo ko fa def. dëgg la waaw te nee na moom si moom dëkk baa ngi dox. Mhm. am na xaalis xanaa rek dafa yéex. voilà euh, ay technique la rek ah. Euh, li xale yi naan xaalis bee féete boor mais il faut tout faire pour wari fan la. ban euh, boor la nekkee ban la nekkee mais ci liggéey bu rafet. bu rafet exactement ah, ci anam yu gën a sell. man gëmuma xaalis dañu koy lijjanti on a tendance à dire que xaalis dañ koy lijjanti. Mhm. mais lijjanti souvent day indi facilité. facilité souvent day indi ñaawteef pour am xaalis. donc c'est toujours bien nga ñax pare jëriñu. exactement Pape Cheikh. <laughs> ma ko de bay bu ma njël benn wax. yow des fois est ma ko nga kii. <laughs> ma lan nga sàmm kenn. <laughs> saa yi dama làmb loolu xam nga léegi. Euh, dama toog fii sama rakk ba ma aar yéen indil ma enveloppe bi ne ma jam moo la ko jam fii lay liggéeyee ci biti ma ibbi nii enveloppe bi yër mu xaw a diis ma ni ah xëy na maa raajee moo fa jaar yóbboole ma jam ma woo ko suuf ne ko ma laajal ma ko. ñoo ko ko jox maman laaju ko mu yëkkati sama téléphone allo jàmm xaalis bi kan moo ma jox mu ne ma xaalisu GFM en fait la ma ne ko <laughs> sama xol bi yëpp jeex. mu ngi waaye xam naa ni budul woon xaalisu GFM en fait. yéen ñi nekk ci plateau bi du ngeen yëg ni 300000 la nekkoon ci enveloppe bi regardez. <laughs> <laughs> c' est les 300000 nous vous offrons ak GFM en fait mën ngeen a woote mu ngi tege ku ne bu sa wërsëg nekkee ñu jox la enveloppe bu toll ci 300000 Aminata euh, merci on est content comme chaque jeudi nga indil ñu euh, ñu koy relever bëgg nañu ñu def ci seen bopp ni Sénégal la ñu am te ku ne da war a bay sa wàll ci waar wi et que ki ñu dem seeti léegi nii jàmbaar la parce que mu ngi bay wàllam ci waar nga ni loo bañ bañ bañ lëkk. nga war ko mën a nangul. mais kan moo ko yàq ma dawam. kii xanaa papa. ku la bëgg papa sama maamam ak sama papa ak sama yaay yow bëgg <laughs> a yoru papa. ajoor ajoor lii. dégg nga waa Thiès la doomi jaxaar la. waaw exactement alors. Euh,